mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ci góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Sëriñ Abdul Aziz jaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Sëriñ Abdul Aziz jaw moom ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Sëriñ Abdul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. kon ñu daal di koy jeexal jeexaleek Aysatu démb mi toog yendu ci ñaar ñii ne ci kër gi wax leen lu nekk loolu yi nag mat na quatre heures de temps waaye ñu mos ci as lëf te dellu siwaat ginnaaw laa am mais ma jékki-jékki woon seen plateau boobu ñoom comédien yooyu ma jékki-jékki na fa juux jameet barki alxuraanu karim dana bëri moor dom mm. ñemewuñu ma xam nga man góor laa mm. <laughs> man ku ma ñeme dama fekk may nelaw dama fekk ma nekk dans le coma <laughs> ñoom ñii xam nañ ma ñii ñu wax ni dafa def parce que dañ maa gisul mais ma ñëw taxaw jékki-jékki surprise par surprise rek ma ñëw jammet taxaw mhm. ci kanamu saa njóogu mhm. mhm. barki alxuraanu karam dina day yàq tuba yëpp ah. aywa xam nañ ma tuba yëpp lay yàq saa njóogu man góoru yàlla xam nga man góor laa Modou Diouf jigéen c'est une femme Modou dafa am melokaanu góor waaye jigéen naa ñëw ci lu tax man ne jigéen la man ma am melokaanu jigéen te góor laa dëgg la seetkat bu ma mos a seetal ci ñuy seetaan am na ay seetkat. Mhm. man ku ma ku ma xoolal taxawaay góor nga may wax da nga am taxawaay góor. man homme laa mhm. du ma femme. xam nga naa ne xale bu jigéen Rama Fall mi naan ma da ngaa ñaaw ak yooyu. Mhm. comme ni ma def. bu mu maquillé wu bu mu teg fossile dañoo taxaw xool. bu déguisé di. waaye man xoolal maa ngi nii légalise it. femme d'état. femme d'état. waaye ñooñu wax gis nga tapet yooyu ñooy chaque jour toog fi ne ay tapet lañu. tàppet lañu ak ay yambar. nekk si di di yàpp benn benn jigéen. Mhm. te war a yàpp seen moroomu góor. Mhm. Eh. ndax man yi may wax mhm. maa ko mujjee wax góor ñëpp loolu la ñuy wax. waaye du ñu laal seen moromu góor ñi. man la ñuy laal te de man parce que dama leen a sori. waaye ñoom xam nañu ma. nekk naa ñoom ay at di seen patron. su ma naa ñoo gaaree sama oto ci bunt bi dañ koy wax ne coow dañuy daw naaw du ma gis kenn couloir dañuy daw. <laughs> ah te loolu ay waxee. parce que wax na ko dogumal wax na ko nee na nu mu doon yore fii di buum di buum. waaw xaaral ma ñëw loolu moo ko métti. déedéet déedéet moom moom mm. li nga métti laay ñëw xaaral rek di nga dégg. Mm-hmm. la ma su ma li may wax tey jii nag. Mm. ku mën a capturer capturer ku mën a dagg-dagg. voilà mi ngi noonu lii as lëf la rek ci li ñu doon déglu ci Aïssatou xam naa incha allah juste buñ paree jomet bari na ay point yoo xam ne alaaji Modou Diouf mi nday mbilik nga xam ne daanaka moom la jagleel vidéo bi dinañ am ak moom entretien boo xam ne dina tontu ci mbir yi incha allah juste après Jomet mbooleem lu ay set waxoon te ngeen jàpp ni lii kat mënees na cee xeebi alaaji Modou dina indi ay leeral ci jógeem ca wal fajiri ak yu bëree bëri incha allah kon loolu yi na ngeen ko xaar Assane lii ay wax la ak yeneen sax yu gën a ñaaw yoo xam ne wax na ko ci biir yoo xam ni euh, daal teg na ko ci kaw ñoo xam ne bu ñuy wax ak moom dañ doon waxee ak moom ci côté wu li muy teg ci deru wal fajiri mm. ak propos yi muy jël ci wal fajiri ak li mu doon wax li ñu dund ak Sidi ñu ne ko loolu de demeewul woon nii la demee mais nag démb ay saaga ak ay baat yu nekk yëkkati na ko démb noo jàngatee Aysatu waa Aysatu de diglu naa ko mu wax mm. diglu naa it Modou Diouf it mu wax Modou sax biig laa ko diglu diglu naa yeneen ak yeneen mais daal li ma si gis moom daanaka amul njariñ lu amul maam détails yi ndax euh, moom moom mii di ay Aysatu Walfadjri dafa am problème bi Walfadjri amee problème mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci kaw Walfadjri ku demee ni Moodu Juuf it jàpp ni kat Aysatu lii mu yëkkati sama alal la ko def ndax am na ñoo xamante ni dañoo jaar Walfadjri mais dañoo doon dañ faa doon actionnaire actionnaire bi nag du caagin dañ saa dugal seen xaalis mais li mu leen defal. Mhm. li leen Walfadjri defal. ak li leen wal fajjiri suuxat ak ak li ñu am lépp wal fajjiri defal leen ko ñoom pour ñoom koo ne ku ne wal fajjiri du dara lekk jam nga leen mhm. bala ñoo am jàmm dañ laa tontu mhm. kon muudu li mu mënutoon a comprendre moom mu jaar wal fajjiri lu ne mu amee ko fi ay sëtu jaar wal fajjiri lu ne mu amee ko fi ay sëtu wëlbatiku yëkkati ay kàddu yoo xamante noonu jëmale ko si wal fajjiri mu koy seetaan loolu la mënut a comprendre mhm. moo tax muudoot bi mu ñëwee daa di leeral wal fajri ni mu tàkkee ni mu defee nangam munuñu faa liggéey mënuñu faa liggéey loolu lépp am solo lool. Mm-hmm. mais bi mu demaatee ba si côté ay aysatu bi mu ni léegi kaa ma leeral leen li fi li fi jëlee aysatu. Mm-hmm. après si la ko leeral askan wi. Mm-hmm. xañ na am na ñu ko soxla am na ñu ko soxlawul. aysatu bi mu ñëwee moom it daan ni xaaral ma leeral leen may li ma jógee wal fajri. li mu du wax du loolu lii la. muy ay saari détails yoo xamante ni amul njariñ te it ñoom ñaar ñëpp booy wax dañuy wax naan Sidi Lamine nii Sidi Lamine naa loolu boo ko dee jàngat da nga naan man Sidi moom xam nga dañ lay yóbbu si ay détails yoo xamante ni amul njariñ mm-hmm. pour man bu ma ko dee déglu quoi ndax da ngay kii ni Sidi moo ne ma lii Sidi moom wax lii kii ni Sidi moo ne ma si Sidi nekkatu fi mm-hmm. kon nag li gënoon mooy ñu ñaanal Sidi tey sàkku si moom ay ñaan tey wax si acte yi nga xamante ni moo xew mm-hmm. ndax tey ji mën naa ni mën naa ni Modou Diouf dafa soof nit ñëpp dañ naan ah Moodu Jóob dafa soof loolu kat garaawut loolu Assane wax kay garaawut muudu saaga ma ñu ni la Moodu wax a garaaw te fekk na dafa soof gi xaj na fa mu àgg si muudu sori na mm-hmm. moo tax tey jii nit ki mën na ne kii kat li mu wax garaawut waaye la kee tontu dafa garaaw déedéet xam nga mm-hmm. ki nga wax ki mu wax moom li mu wax da koo da ko natt ba xam ne lii la wax muy dëgg mu wax ko keet li mu tontu da koo natt ba jàpp ni lii mooy tont bi nga xamante ni mën naa ko tontu mu woyof sama xol ma tontu ko kon nag li si des mooy ñun Sénégal yi am na loo xamante ni concerné wuñu am na loo xamante ni yitteeluñu muudu ñoom ñi ngi fi moom képp ku laal wal fajri ak lu mën a xew nañ la tontu. kon nag képp kuy wax ci wal fajri da nga wax loo xamante ni dëgg la muy lu leer mais kuy tontoot ñu la tontoon nga xam ne dañ kii de maa ko maa ko wax lii tontu na ma nii la gisee fii la toll waaye man weesu naa fii loolu daal man laa si gis bu ma sañoon daal man yooyu moom ay détails la rek. Hmm. ay détails ay détails yow da nga cee taay waaw man moom wax dëgg yàlla ay détails yi moom dangay reeba tas daal. Mm. Mm. nekkoo ci daal. te wax ji yow ay détails nga ko. nga hmm? ko jàppee ay détails la moom yi mujj te ay détails mën naa continuer doon ay détails comme rapport yi ni ñuy def ak diw ak diw ni diw ak diw ak diw ne te am na ñoo xam ne dañoo war a ëpp loolu bu ñëwee dañuy war a wax li ñu li nga xam ne mooy li xew dem seen yoon. d'accord nit ñi seetaan moom xam na ñii ñooy ñan ndax man ñu bëri am na ñoo xam ne xamuñu Modou de mais audio yi ñu ma am waaye ay qualité yu lañ ma siy wax waaw ah? kii moom ah. dañ ko jëlale yow bala ñu laa wax qualité ah. Modou sax yow mi nekk ak moom waaw xam naa yow xam nga man mi ko nekk ak moom xam nga ndaw si dem bi bi ñuy présenté Modou mm. man dama ni la waa ji rapport boo waxee ba mu génnee pale nee na moom diis Macky mm. ñu ko doon wax mm. moom fekkul Macky moom pale mm-hmm. mais ñu Aïssata doon présenté dem ñun gisuñu Modou moom moomu kon këram la koy bàyyi mm-hmm. ñëw fii mais xam nga ñoom ñaar dañ siy perte ñoom ñaar ñëpp siy perte Aïssata ak Modou ndax ñoo xam ne dañoo nekkoon wal fajiri ñëpp xam ne ay xarit lañ ñi nekk si kër gi xam ne ñii ay xarit lañ ñoo daan ànd suba ngoon guddeeg bëccëg si niñ waxee ñu demaat ba yàgg kenn naan bi ma àndeek moom def lii di nettali seen i jaar jaar ak ni ñu àndee woon nga xam ne ñii bu ñu meree dañuy wax seen jaar jaar loolu pertement la nit ki ak lu mën a xew lu ngeen bu ngeen ànd rey nit sax même bu ngeen meroo nee ci yàlla non non mais Modou waxul woon fa mu ànd ak Aïssatou de hmm. Modou da doon wax ni lii ñu wax ci wal fajiri lii demeewul nii nii la demee waaw mu ne xaar ma leeral leen Aïssatou non Modou waxul ci diggante ak ah, Aïssatou wax na ci waaw ah, mais xaaral leeral leen Aïssatou li ko jotee leeg Sidi daal di expliquer mais lépp ci Walf Fadjri hmm? ci am na am na loo na neexu ko xam nga tey ji mëne la wax naa la la ma naa nee naa la bu mënee laa yow da ngaa soof xam nga yow garaawut ci yow mais mën naa garaaw ci ah, keneen par man li ma dégg maanaam Modou duggul benn ci vie privée li mu seq ak Aïssatou hmm. maanaam mi ngi wax ci ni ñu doon gérer Walf Fadjri ak ni mu doxee ak li mu ci wax hmm. man loolu laa dégg mais côté Aïssatou Euh, gis naa ba tàyyi sax jomet bu ñu ci duggee danaan bëgguma dugg ci vie privée wu jàmm voilà la tàmbalee kay loolu lay tàmbalee mais la mais nit ki daal xam nga ne bi nga waxee wax nga mais li ñu lay tontu bul xam d'accord mhm. jaajëf mesre alaaji mhm. asante nee na détails yi jaru ko mais naam dégg naa ci yoo xam ne démb man xaw ma ko woon ci yow alaaji man xaw ma ne woon ay sotu buy xëy si di gaare da ngeen daw dugg ci couloir yi <laughs> loolu xaw ma ko woon te détails yooyu bëggoon naa koo xam waaw dugg ci ron la léegi doon taabali alaaji ndeke li ngay nekk suñu kilifa yëpp ba ma saan romb Aysatu directrice nga koy wax mun la wii saa njoogu mm. di joxe ay programme ak yooyu wax na ba am kàddu yu ma la yoo xam ne ñun ñii nga xam ne yaa ñu yilif neexuñu mm-hmm. dañ lay bàyyi nag nga joxe sa xalaat ci li nga dégg démb li mu wax ba tudd la ci waaw macha allah am na solo xam nga li njëkk mooy mm. eh, émission bi defe naa bërki démb la de ah bërki démb lañ ko def. waaw waaw bërki démb la. amoon invité mais invité bi dafa tardé. dafa tardé mm-hmm. waaw. invité bi ñu woo ko ba ay heure bi ñu war a def émission bi jot ñëwut. Hmm. ma ne ko Moodu il faut que man maa woo Moodu de man maa ko wax ne ko mu ñëw def ci émission bi. Hmm. doon dafa bañoon sax da ne ma non non ça man daal vraiment ma ne ko non c'est que jour. Mm-hmm. Euh, gis naa quoi parce que am na témoignage boo xam ne war nga ko def ci kii bi quoi parce muur bi mu ñëwee dugg ci studio bi dafa dugg ci studio bi. Mm. bi mu ñëwee di ñu ko wax da doon jooy daal. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax naqar goo xam ni am na ko ci ni mu gisee studio bi ni mu lakkee. Mm-hmm. nga xam ni mooy tàmbali teleem. affaire boobu xam naa marqué na ko. Euh, ma ne ko bon il faut nga ñëw ñu waxtaan ci loolu. mu dane moom bon vraiment nag du ñu fax mbirum Aysatu ma ne ko noonu non soxlawul nga koy wax ko dañuy ñëw rek daa dee wax ci parce que bi ñuy installé studio yi fi la la fekk. bi italien yi ñëwee Sidi yow la tegoon pour nga ànd ak gaay parce que euh, boobu la fi ay italien mos a installé studio parce que après studio yi fa des yëpp si Moodu moo ko installé. parce que Moodu am na benn waaye bu ma doon wax da doon wax da Moodu saay saay la lu gis mën ko. waaw <laughs> ba tax boo tax da koy dëbb yenn yi quoi nee na boobu da koy italien yi benn lañ lañ monté mais ci ñoo monté boobu mais biñ ko monté moo da doon ànd ak ñoom di leen xool waaw te Sidi tamit xamoon na loolu ci Modou waa xam na ni moo nit la koo xam ni hmm. bu gisee dara parce que ki ma waxoon loolu benn technicien waaw bëgguma <laughs> tudd mais dana ba moo dana ba xel mel ne lu mu gis benn yoon da koy mën <laughs> <laughs> léegi nag. kooku sax boo tax après. bi ma gisee Modou après di monté waat yeneen studio yi. di ko mm. defar. Mm. après si di wo woowatut benn italien pour mu monté ko après Modou moom mooy monté studio yi quoi moom moo koy defar. bon mm-hmm. après bon loolu. Eh, nekk loo xamante ni bii lu extraordinaire la. Mm-hmm. léegi nag xam naa loolu mooy li ko marqué. parce que mm-hmm. bi mu ñëwee après pour mu expliquer quoi parce que tamit xam nga démb keroog wax na ba wax benn jingaa boo xam ne bi ngi jaar ay pile de vingt cinq millions. xam nga kon donc dalay wax ne la gars yi li ñuy wax naan lii ak lii matériel parce que dafa la expliquer ne la seex li mu fa def rek la mën a expliquer. Mhm. mais li fa sii di def seex mënu ko expliquer parce que xamu ko. Mhm. comprendre nga. loolu moo nekkoon but bi quoi. Mhm. defe naa sax Omar moo posé question bu jëm ci côté Aïssatou. ok après bon Moodu euh, tontu tamit tontu boo xamante ne bi tontu bu amical la parce que tontuwut lu amut quoi maanaam li mu doon wax lu am la. xam nga lu am nag léeg-léeg euh, sa démb dab la mu naqari la hmm. mais daf la war a defar dafa war a tax nga xoolaat sa tey ni ngay doxalee pour sa ëllëg hmm. ban laa dabaat hmm. parce que tey situation bii mu nekk nii moom ay sotu tey buñ dawalaatee ba ci kanam dinañ ko wax ne ko yaa waxoon wax ji Walfadjri dana ko naqariwaat waaw ah, parce que da koy dabaat quoi maanaam démbam moo ko. wax ji dina ko dabaat. waaw dina ko dabaat. moom nee na dara ferege ko. non ah moo tax mu tontu li tax mu tontu rek moo lay wan ne la am na lu ko naqari. Mhm. maanaam paaseem la bëgg ñu fàtte ko. Hmm. waaw loolu problème bi du mu de du mu du du man du keneen parce que boo seetee <laughs> man moom daf ma daf baa saaga li mu wax saaga la ko ci beneen forme mais saaga la. waaw mais nag bon garaaw quoi da ngay xam ni rek. Hmm. dafa bëgg yóbbu wax ji. Hmm. ci beneen terrain boo xam ni euh, terrain la. Mhm. maanaam terrain dàggasante xuloo. te mhm. mbir mi nekkul loolu. mbir mi dafa nekk nit koo xam ne dafa def njuumte. Mhm. te reconnaître njuumte bi mu def. parce que li ëpp solo mooy nga juum nangu ni juum nga. parce que buñ la fàttalee sa lépp ni mu dooree. li Walf def ci yow tey nga ñëw mën a taxaw jàkkaarook sénégalais yi ay xale mm-hmm. eh, seeni mbir lakk mm-hmm. massawu leen nga ne dañuy victimiser wu boo ñemee woon sax danga nga naan ñoo ko taal parce que ni nga waxee mm-hmm. comprendre nga nga ne dañuy victimiser wu ñoo tey mën nañoo émettre loo xamante ni bii yow tey sooy bu yow xam nga xamoo dara man ak yow xamuñu dara ci yëf yi waaye ñu demee xam nañ ni lii kenn mënu koo taal. dëgg la parce que boo ko taalee def musiba. si yow nga toog fi nga toog di ko waxee wax joo xamante wax ju woyof. mais nii ñoo xam ni sa papa seen papa li mu li mu la defal. tey moom ngay tiitaroo loo doon tey. dafa jaar mënoon doon na ko doon li mu doon. ak lu mu mën a doon tey doon na ko doon mais sunu borom da koy jaarale ci ay nit. mais alaaji foofu pour dëggalal la euh, dëgguma la studio bi fa mu lakkee waaw xam nga rajo baa ngi ci suuf waaw mais ba fii rajo bi ñun ñi def émission xam nga ni xet xet gi euh, saxaar si ba léegi ma nga mm-hmm. da nga am feebaru dëgg sax bala ngaa jóg génn non c'est grave barke yàlla mm-hmm. nga xam nga loolu yëpp euh, ñu wax la ne la li nga wax njuumte la fàttalikul fi nga jaar mm-hmm. ak ki nga xamante ni kii tey moo taxawal yëf yi defe naa ni am na ñoo xamante ni bii tey ñu ngi yor alal di daw si di ñëw di ko def faj te jaaruñu sii di fenn. xam nga fan lañ leen rek lañu kii mooy yëg nañ ñi si Lamine mii askan wi la fi nekkaloon. tax ñuy jël seen xaalis di ci def. am na ñoo xamante ne bii Walf lak ñi ngi ciy jooy. comprendre te pourtant amuñu ci lenn lu dul rek Walf da daan day wax rek ñuy dégg. wala ñu yow mi nga xamante ne bii nag defal na lépp nga taxaw ne dañuy victimiser wu kenn waru leen a jox dara. kenn du leen jox 500 millions li ñuy laaj kenn du leen ko jox. Mhm. nit ñi ne la fàttalikul. waaw fi nga jaar ak boroomu kër gi nga génn. di saaga wax say wax maanaam saaga mooy amoo argument quoi xam nga c'est que nit ki boo amul argument day saaga quoi xam nga c'est bu buñ la jamee foo xam ni euh, euh, fiñ la jam dam dal na parce que jam bi dal na. parce dóor bi moo waral nit ki wax émission boo xam ne bi daf ko bokk ak ay nit. pendant vingt six minutes nga tontu ko trois heures de temps moo lay wan ne la. ba bu mënoon a continuer di wax ba tey day continuer di wax c'est parce que euh, jam na ko quoi kii jam na ko quoi tontu bi ko. mu parce que moom nee na dafa tekki dara yor na teleem di fay ay nitam. Mhm. ba mu fa jógee ba léegi ñu ngi ko seqaloon dañuy gën di torox. Mhm. ndax dañoo war si Lamine Niass. waaw xam nga am-am du du du du tekki xam nga c'est nit ñi li ñuy tuddee tekki par yenn loolu du tekki. luy teg euh, que ni am naa lii am naa laa am naa lale tey ñi ñuy topp. Hmm. toppewuñ leen ci seen am-am ci seen am-am tey këru diine yi ñuy topp yëpp toppuñ leen ngir seen am-am seeni jikkoo lañu leen toppee ak seen ragal yàlla ak ni ñu mel noonu lañ leen di toppee parce que loolu moo ëpp solo matériel xam nga moom bu gisee ni matériel mooy avancé. maanaam nit ki am na lii am na oto am na kër am na lii. am na lii lam bi muy takk rek boo jàppee ni boo jàppee ni loolu booy avancé. lam bi muy takk yaa ngi ci erreur quoi am na ñu nekk foofu te ñoo gën a tardé. lam bi muy takk. Mhm. mën naa fay salaire u cinq mois benn agent Walfadjri te nee na nañu réglé moo yoroon salaire yi di fay. te mi ngi ak te lam boobu mu takk rek day fay cinq mois cinq cinq ans. Aïssatou benn agent foofu. Aïssatou loolu loolu loolu mën naa de parce que. <laughs> ah mën naa ne waaw lu mën a de la. xam ah, nga Aïssatou waaw Aïssatou nit ku spécial la quoi xam nga Aïssatou ndeysaan hmm. yàlla dafa def eh, bi ko sii di soog fal. Hmm. Euh, Aïssatou xam nga boo dafa <laughs> dafa bëggoon a nekk ci kii bi quoi am na benn waay bu ko daan jaay xam naa waa ji bu bëgguma tudd turam quoi. Hmm. waa ji da nga daan jaay ay eau eau yi Colobane la ko doon jëndee 1500. Ah. léegi Aïssatou bu ñëwee di jëndee eau yi ay 35000. Ah. pour moom yu jóge ay Turquie la yu jóge ay Dubaay yu <laughs> yu jóge ay Turquie kii nga maanaam high tech. kon lan bi mën naa Aïssatou dong moo yëgutoon ni eau yi eau 1500 la. <laughs> c'est que tax ba jàpp ni. lam bi kon daa mën nañ koo jaay lam boo xamante ni bii mën nañ ko koo jaay prix bu cher boo xam ne lañ koy wax ne ko lam bi loolu la xam nga xam naa bu dégloo lii dara ree nag parce que bu njëkk ko kooku lay gis. ku ko doon jaay oo yi ji lu mu nu mu mën a jëndee au mille cinq cent bu ko jaayee trente cinq. Euh, daa xam ni waaye daa xam ni ay sotti xamul rek parce que boobu bëgg naa dugg ci see bi rek xam nga après. <laughs> kon wax nga lam bi kon. <laughs> lam bi kon man daa jënd lamu cinq millions sax mën na koo jënd. wax nga dëgg yàlla mën na koo jënd te fekk lam bi fekk lam bi sans départ <laughs> lay jar. waaw ah, mën naa waaw daal lam bi mën naa ja mën naa yow mën ngaa xam ne 700 waaye moom xam du ko xam quoi. ñu jaayal ko 5 <laughs> millions. ay sotu nag. daanaa la quoi mais c'est que c'est li li ko wallaahi li ko moo di wax yëpp man gisuma ci dara lu garaaw xam nga lu ma ci gis rek mooy euh, da ko fàttali Euh, fi nga xam ni parce que da ko fàttali ne ko ñii say rakk lañ say rakk lañ parce que Sidi sa papa ko quoi. Mm. parce que Sidi li mu li mu defal doomam rek la la defal. Mm. jox na defal na la sax lu mu defalut ay doomam quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. ñëw na tabb la directeur nga nekk ci tele bi. comprendre nga wëlbatiku ñu lay maye mu mayee la ci biroom defal la teraanga gune. bénéfice 200 comprendre nga loolu nga xamante ni moom la la defal. tey jii bu ay doomam nekkee ci xat-xat amal beneen taxawaay bu wuuteeg bii nga am quoi loolu dong la ko mu du waxam ah. lii nag mooy li nga xamante ni bii moo ko naqari. mais gars yi nee nañ bénéfice de deux cent pour cent la waajur ko doon jaay bëri bëri mi alaaj kooku ñàkk euh, yërmande la. bëri bëri mille cinq cent mu jaayee ko trente cinq. kii mais alaaj kon ba mu ko yëgee daa mer ak kooku. kan moo ko gindi alaaj ku ko gindi ku ko gindi. te dara xibbiliko nag xaw ma fu mu xibbilikoo de mën naa. mën nga dëgg <laughs> nee na sama rek mën naa fay. 5 ans xam nga dafa am gars yoo xamante ne bii ay naaj mm. lees mën a wax ci kaw. ak lu ñu mën a wax ci kaw mais mm. tey moom mënoon naa joxoon nit ni ko li ngay fayeeku ci mm. bërëb boobu bariwul. keneen génnaat wax ko leneen loo xam day dar gémmi day xam ni kii liggéey fii mm-hmm. salaire bi bàyyiwu ko fi. xam nga euh, beneen bi mooy loolu tuuti man su ma toogee fii naan euh, waaw Bécaye Guédiawaye info sa loolu nga am de salaire mayu la ko ndax xam naa salaire lu mu man mm-hmm. maa ngi tuutal Assane Mesere mi nekk sama wet ndax mi ngi fayee ko jamono bi Aïssatou di wax loolu man xooluma loolu de ndaw si doon présenté ak ki ne ci wetam mm-hmm. laa doon wax parce que nee na ko yow jaar nga wal fajar xam nga la fa ne waa ni ko man aw ma foon salaire dama nekkoon stagiaire mm-hmm. léegi bu ne ndaw si iPhone am bi mu yor góor ko ko jox salaire mënut loolu. kon mi ngi xas ay employé am. Mm-hmm. te salaire nag mën na lu nekk. Mm-hmm. salaire nit tabax na ci kër. Mm-hmm. salaire nit jënd na ci oto salaire nit def na ci lu nekk. salaire na ci ni ko ci defee. salaire day barkeel. waaw day barkeel kon foofu rek xas na ñi nga xam ni mooy ay employé am yi mu nekk loon mais ki ko jaay body yi fu ma ko gis ci Ndakaaru. ko kay bu ñu nappee wër moom. non ko man mi maa ma moom problème. Ah, body 1500 mu jaay ko 35. man mi maa ma waaj problème. mais loolu dafa garaaw. waaw. waaye man kon lam bi ku ko saytu o la sipp wala. ah o o. ay o bëri nii o. lam bi kon lam bi fi doon ko gëstu jaar loolu quoi. lam bi bu ko gëstu at naa jël na na na na na na jégalu li mu waxoon rek parce que. li mu wax waaw li mu li mu def loolu dafa rafetul quoi billaay. parce que loolu defe naa ni képp kuy mbokkam di ko wax ne ko. li taxawaay bi nga am ci Walfadjri du taxawaay bu rafet quoi. Mhm. parce que. wala bu amee ay ñenn nit. problème dafa am dafa dafa am taxawaay boo xamante ni mhm. euh, waru ko waru ko am moom. Mhm. ci Walfadjri parce que mi ngi noonu di expliquer fi mu jaar ak Walfadjri. ak fi mu jaar kon donc loolu rek mooy wane ne li mu wax waru ko wax. donc loolu rek mooy problème bi ah na bàyyi. loolu fi ñëw xam naa dana dana ñëpp danañ jubóo. ndax ñoom njabootu neen lañ. Walf moom day patrimoine patrimoine boo xam ne ñi fi jaar ñëpp dañu yaakaar ni ñoo ko moom. <laughs> Assane li ko xeet xamu ko. kenn ko la Assane <laughs> munoo yem rek ci njaboot. waaw munoo yem rek ci <laughs> saa yërëm leen ko non non kii na. Mm, saa defu ko dara li wax saa moo gën a moo gën a. Mm. non mm, waaw nee na nag waaw nee na waayam nga woon nag. Ah, waaye après la nga ko gën a bañ ci àdd <laughs> waaw <laughs> te te tamit Aysatu day jaawle Aysatu <laughs> maanaam euh, euh, fii fii euh, maanaam li fi jaar buñ ko tekkee wal fajiri des fois dana jaar fi ñu ni wal bu buñ baaxoon ñu jël temps d'antenne ba bàyyi foofu ñuy wax lu leen neex defe naa fii solution TV la mm-hmm. lenn la ci njabootu Walfadjri mm-hmm. jàkkaarloog Walfadjri mm-hmm. euh, collaboré nag ak Walfadjri mm-hmm. kon nag def naa loolu da koy jaawale day jàpp ne Walf ñoo cautionné li fi am ñoo wax moo boobu sax boobu takk soo bi demutoon Walf ndax boobu laa fekk Walf non waaw ah. fekk ci ay jafe-jafe ayoo looy tàggoo waaw xanaa di sant ñëpp rek kii nee na Aysatu mooy Assane Assane mooy Aysatu loolu moom mun na <laughs> loolu moom mënta nekk moom Assane man man gars yi man gars yi jaaxal nañ la. <laughs> gars yi commentaire ñoom mën nañ ku ñëw rek ñu ne koo koy Assane Assane Assane moom. Mm. Assane yow mën nga loole yow Assane Seck xam nga tamit am na ñoo xam ne tëdd bi yow xam nga tamit Assane bu génnoon dóor la xeer. Mm. sooy ba xam nga da ngay ree rek bàyyi ko bu def parce que Assane naa dóor ku ne xeer. Mm. loolu la. Ah. waaye mais nag moom li mu doon wax ci eau yi des fois mu daal ñu de. des fois moom mu jënd benn ma jëndoon benn affaire. Ah. moom mu jënd ko bu dee dee ba mu ne waa soo bu yow affaire boobu ma gis loo ko jëndee woon <laughs> su ma nee ko nangam mu di waaye kon kii damay photo mais gars yi rek am na xam ne dañoo mën a jaay de. non gars a jaay gars yi nga. loo xam ne ah, non non c'est que pare saa nit jaay ma bëkk ma ba xam ne <laughs> mu leer ma ne ma bëkk na ma. xam ne jaaxaan mais dafa koy bàyyi ci biir. dafa koy bàyyi parce que pare saa dafa am yeneen yu bari yoo xam ne mooy tax nga bàyyi ko ci biir quoi da nga naan garaaw <laughs> ah, amul benn rajo bu ñu la fi jaayoon. waaw ah, waaye Papis Mbaye Papis Mbaye mooy jaay rajo bi léegi jëlee na rajo bi jëlee na ko ba. Papis ak Seeraan de waaw Papis ak Seeraan jëlee na ko ba yëmbal ah. indi ko. Ah. man bi ma xoolee rajo bi neexuma. Ah. mais Papis man ma nan laa koy waxee waat. parce que waxaale naa moom ba pare te gisuma ko woon donc bunu ma dellu ginnaaw quoi parce que jiital naa sama kàddu ba pare. <laughs> Papis tamit mi ngi bëgg a dëgëraat ma bëgg a gée Papis. day woo waa ji téléphone te Papis ay waa ji mooy kii bi. <laughs> maanaam Papis moom rajo bi. Papis moom rajo bi te et puis mooy waa ji quoi léegi Papis. bu téye téléphone bi ne alors saa euh, loolu la wax de. <laughs> saa loolu la wax te moom mooy waa ji. mooy waa ji waaw. Ah. Ah, xam bari sama te yàgg naa xam ne xoolal man xam <laughs> ah. bi naa jël rajo bi parce que rajo bi Papis bu ma ko bu ma ko bu ma problème léegi bi ma jëlee rajo bi bañ dem lu yàgg ma ne ko Papis yow yaa nekkoon borom rajo bi ko jël sax bàyyi ko ma ne ko Papis yow yaa nekkoon yàgg may wax ngay téléphoné <laughs> Papis aga jubadi Papis <laughs> aywa non Walf de Walf dafa neexoon nag de. Papis ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. Eh, di ko jaajëfal foofu ma nga foofu la ah. <laughs> ñu ngi koy siyaare bu baax moom Papis. Mhm. Eh, di siyaare Serigne Khadim Diop. ma nga sa Touba marché ndigal. Mhm. ñu ngi koy siyaare bu baax di ko di nuyu waa Cuuneen yëpp. di ko teg si loxob Xaadim Jóob moom sa marché ndigal ni ko xam muy ma waa marché ndigal yëpp bàyyiwuma kenn ñoom Lamine Laam ak ñëpp daal ñu ngi leen di siyaare. Mhm. te nga bàyyi li ngay def. bàyyil ku fi ñëw di joxe dara. Mm. nga fotoog moom encaissé ko. Mm. te ku fi ñëw di laaj social. Mm. mu jox ko sama numéro. <laughs> kon fii laa fekk benn Gambien boo xam ne fi lay yendu. ndeket su suba la wax ni dafa am ay affaire yu kii bëgg social daa am ay matériel mu jënd bëgg koo euh, transporter. mu yabal ko ci ñun mu ne ko sooy booy def yooyu. ma fekk waaj ci suuf ba nga naan ma am na ñu ñuy xaar ci suuf ndeket kooku la bàyyi loolu asan kooku kat man nee na moom soxla wu ma. déedéet non soxla na la yaa koy orienté. bàyyi yooyu man dama lay laaj. ma laaj bu dee enquête da koy enquêté photo ak moom. bu ma ñëwee nuyu muy mënu ko. la ba xam ne kuy <laughs> joxe la wala ku ñuy jox. non ndax bu dee kuy joxe mu enquêté la photo ak <laughs> tàpp tàppal la <laughs> gunge la ne la macha allah. kër gaa yi bu dee ku war a jox. Mourad nag ah maa jox la gars yi. xam nga dafa am ñu ne hélas na ko la billaay. kër a gis ma ne ko mu ne dafa am yitti ju na ma ne léegi numéro ma ngi noonu numéro son yi boo ngi noonu ñoom ñaar ko si jot baax na. ah xamoon man su ma expliqué woon. non dee ko enquête naa mu ngi mais kay man dee ko gérer waaw dee ko gérer rek. ah déet. man kay bari na gérer wala boo xam ne pour social la. waaw budget la daaw côté. ku nekk ko budget côté. boo ko joxee budget social damay lekk de de. <laughs> alaaji kon bu subaa ak jàmm.